di am mbégte ak kontaan ñëw teew fii parce que yéen yéenee présenté li nga xam ne moom moo tukkee ci gàmm bi nga xam ne si moom moo di gàmmu 2020 gàmm nag buñ ko waxee ñëpp xam nañ li nga xam ne moom mooy sabab bi mooy màggal gi ñuy màggal gan ak jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye na ku nekk xam ne ni màggal tamit dañ koy def ci dëkk yu bëree bëri waaye nag fii ki Touba moom dañu fi gàmmu bu baax a baax a baax kon nag jamono ji ñu ngi fi taxaw fii jàkkaarloo ak résidence Cheikhul Khadim jumaa yi nga xam ne moom mooy jumaay jumaay jumaay nga xam ne ñoom ñoo fi nekk naka la ñuy dundee guddi gi bëggee xam lan ci gàmmu gi fii ci ci biir jumaa ji da ñu topp incha allah ñu wanale leen ak li nga xam ne moom mooy tukkee ci biir jumaay Touba ji waaye nag du ma ci wér benn yoon dama ci ànd ak sama caméraman Cheikhouna moom moom may gunge ñu ànd dugg xool ba xam lan moo xew ci biir jumaa ji jamono diw bismillahi fii ak daara yàllaaw sawi baqa abi bi fiika yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad li fika ya وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي الدر منك يا الله عزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألا يضر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله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 waaw ah, sama xol dafa sedd guy bu ñëwee fii euh, Touba man maa joge ba kafin ñëw ci gàmmu gi wax dëgg yàlla parce que gis nañ fi mbooloo moo xamante ni macha allah neex na gàmmu gi sant yàlla bu baax a baax a baax mbooloo mi macha allah ñëpp ñëw nañ euh, gàmmu si euh, di ñaan yàlla rek képp ku fi ñëw nga dellu si ñëw si jàmm dellu si jàmm vraiment xool yëpp sedd nañ man dama kontaan parce bi ma ñëwee si jumaa vraiment li ma gis euh, dama kontaan kontaan naa bu baax a baax parce que màggal Touba sax macha allah nii la nii la feese woon kon buñ jógee njaareem lañ jóge nii njaareem la jóge léegi léegi ñu ngi door aski nii moto la ñu yor biñ askee njaareem it macha allah noonu la mel euh, euh, fees na mbooloo mi bëri na macha allah biñ ñëwee jumaa ji it gis nga liñ fi fekk wax dëgg yàlla xol yi sedd nañ guy guy guy guy di ñaanal sëñ bi rek yàlla ko fi yàlla yàggal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. waaw ñu ngi jéggalu bu baax nag mais daal wax dëgg yàlla kontaan nañ bu wér sant yàlla euh, ñooñ dañ leen di ñaanal yàlla guddal seen fan tamit parce que euh, li ñuy li ñuy jàng fii ñun ñëpp lañ ko jàngal euh, waa tuubaa yëpp lañ ko jàngal àdduna ñëpp amul tiijaan amul laayeen amul xaadir ñëpp lañ ko jàngal di ñaan lépp luñ fi jàng rek yàlla na barke yàlla na tasaaroo si àdduna bi vraiment kontaan nañ ci jàngkat yi bu baax a baax a baax. Euh, ñun ñun ay ndaw lañ ay jeunes lañ euh, ñu ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaanal euh, lépp loo xamante ni jàng nañ ko fi ñu ngi leen di ñaanal ñoom it lool loolu ja xasaa yooyu xasaa yooyu ñuy jàng ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax ñu gudd fan yàgg ñu ñëw Touba di leen fekk ñu koy jàng kontaan nañ bu wér waaw kontaan nañ bu wér a wér a wér a wér parce que li fi li fi li fi am ñu ngi ni njaareem lañ jógee loolu lañ lañ fa fekk vraiment. suñ xol dafa dañoo dafa sedd foofu ñun ñi nga xam ay jeunes lañ bëgguñ ku dul sëñ Touba kese waaw. waaw alhamdulilah rabil alamin ndax lii moom wax dëgg yàlla séntu woon nañ ko fi daal ku dëgg yonent bi mel nii moom ah sant yàlla la loolu tax yonent bi sëñ Touba daal amul moroom waaw dan koy maanaam dañuy ñaan si Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ndax balaay sa lii lépp moom la waaw. wax dem nañ ba njaareem tamit comme d'habitude rek nii la feese woon. xam nga ñu ñëwaat fii ni mu feesee nii kon nag sant yàlla rek la def waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Tuuba jërëjëf. waaw loolu di sant sëñ Tuuba Xaadim Rasuul bu baax a baax rek ndax di gëm ak yonente bi alayhi salaatu wa salaam moom maam da koo dundan lool fonk ko def ko noo xam ne maanaam kenn def ko ko kenn defu daal moo tax itam sun borom dogal itam moom ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam loo xam kenn amu ko ci waaw boo xoolee guddi gii ni ko waa Touba yi dundale ci sunna ak li waxan ne maanaam dundal ko ci sunna maanaam tawféex la ah, lii da ciy feeñ lool ah, ñu fas yéene yaakaar sëñ Touba fas yéene koo santale ci guddi gi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu baax a baax màggal ko tam ci sunna comme ni mu ko waxee waaw ndax eh, ni nga xamante ni noonu lañ ko waxee ci màggal ko ci sunna ak leen ciy am ko ni xam na ko waaw ñun nag ñuy jànkati xasaayit sëñ Touba loolu li ma ci mën a tontu mooy maanaam feneen foo dem ak yeneen tariixa yoo mën a dem rek ña ngi koy dundal itam ci sunna waaye sëñ Touba dafa am tawfiix ci yonente bi alayhi salaatu ndax maanaam mboolem lee nga xay maam moom la ne gàmmo murid yi ko gàmmoo rek moom moo ko bindal boppam waaw di ko defee tam ci dëkkam bu sell bii maanaam muy Touba mooy lu am solo lool ñu koy dundal itam ci xasida kem ni mu ko waxee ci xasidati faaxar xasaydal kiraam wali taquudu abadan xayral maraam jàngat bi ñu ci am de mooy gannaaw ñun ay taalibe murit leen amul lu Serigne Touba li mun a sant rek ci la ñuy dox te moom gannaaw guddi gi moom da koo fonkoon di ko defal jëm boppam sant ko képp ku topp ci moom sant ko bépp jullit kon tey ñun su suñu amee tawféexu fekkee ko ànd koog moom ànd di ko mën a def ni mu ko bëggee dañuy sant bu baax a baax tey li ñu gis ci jumaa ji maanaam ñëpp danoo maase màggal bis bi guddi gi ci ni ko borom bëggee te loolu mooy li war jullit bu nekk ndaxte bu fekkee dëgg la ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbégte la ci ñun dikkam sunu sunu ndam la sunu sunu sunu sunu succès la kon tey guddi gi waruñoo for bët danoo war lépp jox ko ba mu jeex tàkk te loolu lañ gis fii kon xol bi seet lañ ci àndal di ñaan nag borom Tuubaa dimbali ba mbooleem liñ ciy séntu lépp mu defal ñu kawe njort saahir a dëppoo baax a baax. bi bi sant Serigne Touba a baax ci la xëy ci la kon lépp lu ñu am rek dañ ko jagle Sëñ ak yonent bi ci loolu la ñuy yëngu am yëg-yëg bu baax na chaque année ñu koy def tàngal café ñëw indi fi di ko berne Serigne Touba ngir ci guddi ñaan yàlla mu jëm kaam rek chaque année ñu koy def incha allah loolu la ñaan yàlla waa sant Serigne Touba rek daanaka jamono fi mu toll moom yéeme na doy na waar jamono ji doy na waar euh, mbas mi bari na ñu koy dégg rek nag mais nag ñun euh, ñu ngi gënal suñu muntaxaare duñ tiit duñ ragal comme que nee na lépp baax daal dañ jàpp ne lépp ay baax rek ñu ngi koy euh, euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy dund comme ni ko ñëpp di dundee di respecté mesures barrières comme ñu koy defee di masque mais dawuñu corona nag danañ masque wu ngir sëñ Muntaxa ndigal lu ñu jox mais dawuñu corona ndax taalibu sëriñ Tuubaa lañ. tey moom soxna si yëg-yëg bi am moom moom mënuñu ko wax sax ndax suñu dafa fees dell ndax guddik Seydina Mohamed moom guddik moom suñu xol dafa seet daal soxna si saa yi moom mënuñoo wax daal ndax. na Mohamed moom bu ñu nekk fii di wax sax dañuy jooy sax waaw saa moom kontaan daal lan def lool di ñaan yàlla daal lépp lu fi waaye njàng ak ñaan ko fi yàlla nangu ko si si barke borom guddi gu tey gi. waaw guddi gi ñun moom yàgg nañ koo dundal parce que instant bii nii euh, xol yi dafa dafa fees dee la ndax guddi Seydina Mohamed ku ko fekkee soxol xol dafa war dafa war dafa war a dafa war a tooy neex. instant bi ñu ngi sant yàlla bu baax di dundal guddi gi tamit ba mu baax nekk fii si daaray kaamil niñ ko daan defee chaque année toog fii nii jàng suñuy xasida jàng suñu alxuraan sante ko sant ko Seydina Mohamed waaw instant bi noonu la ñuy dundalee guddi gi ñun waa Touba. waaw loolu moom dañ koo yàgg def loolu moom ku xam ku xam murid ñi xam si guddi Seydina Mohamed loolu moom dañ koo yàgg a def si njàngum alxuraan mi si njàngum xasida yi loolu moom dañ koo yàgg a taxawee moom loolu yàgg nañ koo taxawee xam nga lu mel ne bisub euh, guddi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, liñ ci war rek moom la waa Touba def mu di jàng alquran ak jàng xasida ak salaatu ala nabi loolu rek mooy bis bi du leneen ak bernde yi te waa Touba ku leen xam xam lañ ci jàngum alquran xam lañ itam ci jàngum xasida xam lañ itam ci euh, salaatu ala nabi xam lañ ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sëñ Touba ak dundamul yëpp da ko jox kut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax tey suñu borom tey fayee ko li mu ko faye tey kon nag kon bu waa Touba Mbiru Sow génnandoo àndandoo màggal bis bi ci ni ñu ko màggali ni rek kon dañuy wax ne kon jërëjëf Serigne Touba te xam na ne lépp rek Serigne Touba moom moo ko waral. ñu ngi sant Serigne Touba si yonent bi di santaat Serigne Touba bu baax te xam ne moo waral lii lépp. ndax Sëñ Tuubaa dafa nekkoon koo xam ku fonk gàmm la kon tey jii nii amuñu lenn loo xamante ni euh, loo xamante ni Sëñ Tuubaa mi ngi si woon kon saa loo xamante ni Sëñ Tuubaa mi ngi si woon suñ ñëwaatee dañ koy dundalaat muy sunna te dafa doon laa xamante ni farata la suñu ndax yonent bi defal nañu loo xamante ni lu kawe suñ la kon day baax bis boobu suñu yooyu dañ ko war a dundalaat waaw ba fajar waaw mu tànnoon si ay xeso yoo xamante ni dañ koy màggale bis bi muy jës moir mu xadimaat ak mimia comme ñi nga xamante ne si daara isver xëy lañ nekk waaw day baax nga xamante ne dañ koy dund ak suñ mu ndaxaa ba fajar incha allah rabi ay yéene boobu la ñu waaw ndax daanaka soo xool loolu si digal waaw suñ Tuubaa loolu la si digal muy alxuraan bi ak xasida yi muy am xasida yoo xamante ne mooy li ma la rek yoo xamante ne daka tànn ngir xasida gàmm te ñun is bi soo xool noonu lañ koy taxawee sax muy jës mois muqaddimaat ak mimiya ak salaatu ala nabi waaw di ñaan ñu am si ngërëmal suñ Tuubaa rek barke borom Tuubaa ngeen ki safoo ngeen safoo seen télévision académie Minane ah, kon mbokk yi gis ngeen taxawaay bi nga xam ni ñi nga xam ne ñoo yeewoo fi ci Touba amee nañ ko ci bis bi nga xam ne mooy guddik Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon defe naa ni njort bi nga xam ne amoon nañ ko noonu la ko murid yi defee kon murid yi ndigal rek la ñuy déglu amoon nañu bis bi ci li nga xam ne moo di ay bernde jàng alxuraan waaye tamit jàng li nga xam ne moom moo di xasaayit dugg nañ ci jumaa ji moo leen leen ak mbokki taalibe yi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko muy taxawaay bi nga xam ne si moom la Serigne Touba bëgg waaye moo tamit taxawaay bi nga xam ne moom la Sëñ Mountakha Mbacké Bassirou digaloon mbokki taalibe yi ñu defee ko li nga xam la ko bëggee woon ñu ngi ñaan bu baax a baax suñu borom nangul ñu bépp jaamu yàlla boo xam ne amal nañ ko fi te fulal ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf